بقية السيف أغزر وأنظر علي بن أبي طالب كوخن ñu ne nañ ko enregistré ca lawxul mahfouz parce que foofu la jekk waaw bi banu umayat giñee ni dinañu fexe ba ku bokk ci sayidatuna fatima dootul am ci kaw suuf dinañ leen rey ñoom ñépp te ñi ko giñ ñépp ay jullit lañ keroog ba Ali ibnu Abi Talib di xeex ak Muawiyatu nu Abi Sufyaan sidna Ali def ne xale yu ndaw yi nga xam ne ñuy sëtu yonent bi te jóge ci Fatima ni leen génn leen yéen tax nit ñi ñëw waaw ah, ñu génne xale ya solal leen ay yére ndëlle ñu mel ni ay njulli ku ci àttan fett ñu jox la fett ku ci àttan jaasi ñu jox la jaasi bu ndaw jox la jaasi bu ndaw sidna ali yu di leen xool ñu nekk ci ram bu jëkk bi bu mujj yaramam di daw moo xam ni ñi taxaw ñépp sëtu yonent bi la waaye kenn du ci mucc tey waaw mu wax waxam boobu bu garab ni tey ku fi jaas si desal ci xale yii ñoo ñooy naani nguuru yàlla ëllëg moo ña ca des ñoo jur sayid abdul qadir al jilani ñoo jur sayid cheikh ahmed tijani nguuru yàlla yépp ña desoon la kon naam waaw بقية السيف أغزى أسمد بالغزاء وبقية السيف أنظر أسمل بالنظر بقية السيف أخزر وأنظر سرين شيخ سنين كوي دون تدور تخو بسم نوار نخم نبو دي دم سفرة kuy dunde barke te doo taxaw bésam nee na boo xam ni soo dee dem safara parce que barke dañ koy tojal te deret sa koy tojal